waa mbokk Farokh TV ba léegi ñoo ngi fii ci Daaru Salaam ñu ngi janoog jëmu yu ñuy wax Cheikh Abdoulaye Cissé Cheikh Abdoulaye Cissé tey di sa bisu mam Alaaji Omar Ndaw ñu gis la nga nekk di séddale ay masque euh, lan moo ko waral ci bés bi waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Farokh TV waaw boo gisee loolu dañoo ñëw rek pour xidmal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xidmal suñu mam Seydi Alaaji Omar Ndaw jàppale ko si ganam yi teral leen boo gisee masque yi ak gel yi ñu koy joxe parce que nit ñi dañ ko soxla si jamono ji kër docteur moo ñu ko déggal pour ñu ñu koy jëfandikoo jëfandikoo googu nag ku ne xam na ne Saalum fu ne la nit di jógee di ñëw fii comme ñun lañ fekk si dinañ am lu ñu leen terelee loolu moo waral nag ñu jëflante ay nit yu baax ay bonne volonté ñu yëkkati ay masques yu bëree bëri bëri jox ñu yoo xam ne mu ngi jógee ko si ministère de la santé ñu indi ko fii si dëkk bi tasaaroo ko fi di ko séddale jaamu yàlla yi boo gisee ñu ñu jëlal ñu volontaire suñu bopp di ko séddale dañoo bëgg nu ñu xam ne ñun lu ñuy def am na fuñ ko teg te am na lum ñu jaral te bëgg na ñëpp mucc te bëgg na ñëpp wér loolu moo waral loolu waaye nag xam naa si kanam tuuti sax yeneen yeneen masques yi ak yeneen gel dina génn nga gis ñu ngi koy joxee si dëkk bi dinañ fexe daal ba képp ku nga xam ne yaa ngi ci dëkk bi soo amul sa masque bopp ñun dinañ jël masque jox la nga takk pour nga mën a protéger sa bopp si wàllu feebar ak poussière bi ak ñom sen zélé tamit non lañ koy doxalee xam naa alaykum wa rahmatullah